صلاة parce que Mawlana Cheikh mi ngi wax ci benn lettre am euh, nga xam ne dégg nga dugguñ ci faydu euh, ñoom ñëpp danañ dugg ci faydu te loolu ne mi ngi mel ne nee na démb ci moom nee eh, na loolu mi ngi mel ni démb ci moom bis dana ñëw eh, xanaa kay dañuy réccu lu ñuy yeexe lu ñuy yeexe dugg ci faydu bi kon nun dañuy sant yàlla bi nga xam ne yàlla boole na ci jaam yàlla yi nga xam ni eh, waxuma dugg ci faydu mais dund nañoo ki nga xam ne mooy borom faydu toogoon nañoo ak moom lekk na jox nañu lekk am na itam lu mu wax ci nun ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla moo nu booleek moom te yàlla moo séddale ay mbiram Euh, ci li nga xam ne mooy adduna bi nee eh, nahnu qasamna maishatum bayna fi xayaati dunia kon nu ñuy dundee ak li ñuy nekk ci adduna bi yëpp yàlla pare woon na ci defoon na ko ci azal abad soog a ñëw kon alhamdulilah euh, nun bu ñu nekkee gune ñi ngi yaroo ci euh, ay sunu biir mbokk yi ay yeneen torix yeneen turux daal ci ñooñu la ñu yaroo nekk fa ak ñoom nekk fa ak ñoom sama waajuru góor nag. moom yàlla def na euh, moom yàlla da ko seppi woon ci ñooñu dugal ko ci tarixa tarixatu Cheikh Ahmed Tidiane yi waaye mi ngi askana woon ci ñeneen tamitam waaw ñeneen la askana woon ba sax man mi waxee yow nii euh, Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum Cheikh Tidiane al Maktoum moom moom mu njëkk a jox wér ci conférence boo xam ne ko daan def chaque anne ak Kaolack ñi nga xam ne dikk nañ Kaolack xam nañ ko sama pap moom amat ba ci moom mu jox ma léegi li nga xam ne mooy tarixa tarixa tijaani euh, ma nekk ci loolu nekk ci loolu euh, yàlla indi ma Kaolack nag ma nekk fa di jàng di jàng arab jàng ci ji Dieye ñëpp xam nañ ko ñu xam ni mustaaribuna yi xaritu Braham la woon parce que ñoom ñaar lañ doon tëkkale ci wàllu lugal arabiya moo bokkoon itam ci ñi nga xam ni ñi ngi woon ci rabitul alam islami am na doom yi mag yoo xam ne si ñu ngi nekk ci rajo yi ba léegi di diviser li nga xam ne mooy langue arabe euh, ba ma fa nekk ay at jóge fa dégg nga sama mag bi ma nekkoon ci kaw rek yóbbu ma ci bàyyi ma yóbbu ci bàyyi man ko nekk kii daal sama rakk la dama bëgg daal mu dugg si ci institut ma ànd alaaji abdullah ma yóbbu ma fa bàyyi ne ko amul benn kii macha allah alhamdulilah ahlan wa salaam marhaban bi dégg nga daal may kii ñu inscrire commencé di jàng yàlla itam dimbali ma alhamdulilah dëgg yàlla ci wàllu njàng mi eh, yàlla defal na mi fa fat mais ci wàllu itam sport foofu itam ci école bi masaan suñ masaan di am match yooyu dañ naan eh gars yi téye leen ko de moom dong la école arabe <laughs> loolu lañ daan wax téye leen ko moom dong la école arabe daan wax ñoo ñi nga xam ne dégg nga ñi ngi nekkoon eh, Kaolack xam nañ loolu <laughs> donc ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba eh, maanaam Cheikh Ibrahim ci voyage yi nga xam ne ko daan def ci à travers le monde mu dem mm, Soudan Jaafar Noumeiri nga xam ne président bu Soudan ñëpp xam nañ ko Euh, taalib Mawlana Cheikh Ibrahim la woon mu dem bàyyi dem Soudan président bi may ko cinq bourses jox ko cinq bourses pour doom yi ñëw foofu Soudan fi jàng si euh, bi nga xamee ne dégg nga bàyyi ñëw na mu jël quelques bourses jox ko ñoom Pape Mahmoud ak Mansour Pape Mahmoud dégg nga ak ak euh, Mansour Niass dégg nga sama xarit ñoo bokkoon lal ma moom foofu Soudan mu jël benn bourse bi nag. mettre ko en compétition quoi ci école bi ci maaxat bi waaw donc examen boobu léegi Baraam Baraam Diop moom moo ko dirigé woon Baraam Diop moom moo supervisé woon examen bi je me rappelle très bien keroog à treize heures nga xam ne ñi ngi programme résultat yi baram moo programme résultat yi génn ci bureau bi ak mbaxanaam mu rafet bi yoolaay macha allah dégg nga daan ne a paalib moor ñang wala si xaaza eh, faza bil eh, bil minha moom moo kenn moo xam moo gagné euh, bourse euh, alhamdulilah ci loolu nag moom la kii doon wax léegi mun xam naa ci conférence bi am ay nit nag jóge fa ne ko nag euh, ki nga xam ne moo gagné bourse bi alors donc du taalibe d'ailleurs murid la sax lañ ko wax dañ ko murid la du taalibe waaw bàyyi xam nga ni daan toogee ci kaw lal bi noon te tëdd ci lal bi nii kaamil bi ne ci kanam muy wal bakkan yi hmm, waaw di nekk ci alquran alxal murtaxil ne ci waaw bàyyi na leen mu ku leen wax ne man damaa seet euh, tarixa seetuma tarixa de man kii nga xam ni moo gañe rek moo ko moo rek jox leen ko ko loolu la euh, alhamdulilah ñu jox ma bourse bi bàyyi ca boppam moo ma wutal mën naa wax ne moo ma wutal euh, passeport moo ma wutal passeport mën naa wax ne carte d'identité sax ko ma ko wutal carte d'identité sax moo ma ko wutal waaw lijjanti ba mu sotti boole maag maahi maahi ak euh, Mansour Mansour ak Pape Mahmoud ak Maxtaar doomam ñu dem jëppal ñu demee jëppal fa lañ ci kër ga dégg nga euh, am fa quelque jour sunu formalité pare sëñ Mahi Niass jël nu yóbbu nu aéroport ñu jël avion foofu dégg nga dem Nigéria bi demee Nigéria dafa quelques jours dégg nga daal kar Uba waru lañu daaloon bi jëlaat nag léegi Ethiopia Airlines pour war a dem mm, Soudan bi jëlee Ethiopia Airlines nee nga bëgg war a dem Soudan dem nañ ba Soudan ci guddi dem nañ ba Soudan àgg fa bi ñu wàccee ñun amuñu visa de rentrée man aw ma visa de rentrée Mansour amul visa de rentrée ñu refoulé ñun ñaar ñu refoulé ñu dégg nga ñu refoulé nu Soudan daal ñu refoulé bi ñu refoulé ñun mënuñoo dugg Mokhtar daal di dugg Mokhtar moom dugg na doomu bàyyi la parce que moom fa la njëkkoon a nekk moom fa la nekkoon moo ñu jiitu Soudan bi mu demee nag léegi dem jokkoog autorité soudanaise yi wal leen problème wax leen problème bi ne leen Mawlana Cheikh na fi benn dooma ak benn taalibeem dégg nga mais ñoom bi ñëwee ci autorité aéroport dañ leen dañ leen dañ leen a refoulé ñu duggaat ci Ethiopia Airlines dem nañu kii Cameroun yaan nañu Cameroun jaar nañ Uganda jaar nañ Kenya def escale fi nga xam ne dégg nga mooy euh, Ghana gaana la ñu wàcc bu ñu wàccee Ghana parce que foofu la vol bi waroon yem avion bi fa la yem. def nañu espèce tourisme dégg nga euh, bi ñu wàccee gaana ñu jël ñu yóbbu nu ci hôtel ñu fanaan fa maag la le lendemain léegi si ñu yóbbuwaat ñu ci aéroport ba bi ñu demee à l'aéroport ñu toog euh, ñu boole noog directeur aéroport bi dégg nga directeur aéroport daan ñu ci bureau am ñu ci bureau am ñu waxtaan ak moom dégg nga mu ne nu kon léegi dama leen di yóbbu dégg nga euh, ci benn hôtel ngeen ne fa ñu ne ci hôtel bi non non mu ne dama leen di yóbbu ngeen dem à l' ambassade ambassade bu Sénégal ngeen dem ci ambassade bu Sénégal bu ko defee léegi ñu naan ñu toppatoo leen seen seen kayit ñu daal ñu dugal ci oto ñu dugg biir Gaana waaw. ñu demoon ci ambassade ba bi demee ci ambassade ñu def suñ demande pour ambassadeur bu recevoir nu ambassadeur bi euh, refusé man maanaam nangu noo recevoir maa ngi Mansour ñu daay toog ci salle d'attente bi à l' ambassade ambassade bi Sénégal ci gaana dégg nga ñu toog. c' était dans les années euh, soixante treize. septembre soixante treize. septembre soixante treize. toog ci ci salle d'attente bi ni maa ngi Mansour ba yàgg ma ne ko ah c'est yaa ngi bëgg a dee de sonn nga de ndekete am na benn sénégalais bu toog ci biir saal bi dégg wolof daanaka comment yéen ay sénégalais ngeen ñu ne ko ah ñun ay sénégalais lañ mu laaj ñu histoire bi mu demee ñu ko mu ne kon man man day xam naa fi ay taalibe bàyyi fii ci Ghana ci Accra ne ko nun daal ñu ngi nii daal mu ne kon xaar leen ba ma toppatoo li may toppatoo ba pare. ànd yenn am na la ay taalibe ma fa xam mu daal di toppatoo ay kayitam génn ànd ak ñun ñu génn jël taxi moo jël taxi ñu dugg biir Gaana biir Accra di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw ba agsi ci benn buntu kër ñu wàcc dugg bi ñu duggee ñu ngi bekk fenn benn benn paa mi ngi toog fële di lekk furaam furaam mooy lekk mooy ñam yooyu comme genre fonde la Gaana yi dañ ko fonk bi ñu nuyoo mu xaw noo négligé tuuti mais bi ko waa ji waxee ne ko ñii kii kii don Mawlana Cheikh Ibrahim la kii taalibeem la dama ne tuuti mu tuur fura bi lekk dafa naaw ci kaw ñëw fu dégg nga Mansour tatafu ko dégg nga ak fóon tataganu daal nañ toog leen may na ndox ñu daal di naan daal na xaar leen tuuti ma ñëw ñu xaar tuuti mu mel ne akara yëpp dañ leen indi mu mel ne akara yëpp dañ leen indi ñu indi nu taalibe yi maanaam ñu toog ci saa si ñu def nu ay kilifa ci saa si ñu daal di transformé wu nekk yeneen nit le lendemain ñu fanaan le lendemain ñu xottul nu ay yére mbaxana ba ci dàll ñu wutal nu ko ñooy dem ci jumaa ji ñooy ñooy waxtaan ñooy jiite ñooy def lépp wallahi lazim ñu boole nag benn waay bu du yi waaw dégg nga Mahi Mahi c'est un ex ministre de finance bu Accra bu gaana bi nu yóbboo ci moom yóbbu nu ci këram këram benn pala boo xam ni kenn mun laa wax nu mel mu recevoir nu wane mi ngi def photo xam nga photo Baye international bi ñu def nii moom tam mi ngi ko def moom tam def ko ci benn <laughs> ci benn bunta moom tam voilà mu recevoir nu waxtaan ak nun yóbbu nu nag dalal nu dalal nu macha allah def nu daal ay mulooku daal ni bàyyi waxee waaw añ reer macha allah ñu toppatoonu foofu léegi de de chaque jour nag mu duggoon ci Mercedes am ñu def ñu sillonné biir Accra ñuy ji muqaddam yi taalibe yi fu nekk ñu dem mu ne nu yéenay seet nag léegi su ngeen bëggee ngeen dem Soudan ma duggaleen ci avion ngeen dem Soudan wala ma ngeen dellu Sénégal maak Mansour ñu xoolante ñu ne ko nañ delluwaay nañ nañ nañ waaw nañ <laughs> ñibbi Sénégal mu daan ni wutal ay billets ñun ñaar mu dagal ñu billet panaméricaine dégg nga indi nu sunu bagage kenn laalu ko ñu jël panaméricaine jaar Monrovia jaar kii Guinée yooyu ñëw wàcc Dakar à deux heures du matin lañ fa wàcc ñibbi si dégg si jëppal waaw bi ñëwee jëppal fanaan fa la lendemain maxtaar mi nga xam ne moo nu jiitu woon di noo bàyyi nekkoon duggoon moom moom tam léegi si nekkate jël na vol dem fële Rome ba jëlee fa vol ñibbi si senegal fekk suñu ci ci jëppal dañoo fanaan rek la demee léegi maxtaar ak si nen nag léegi si du ngeen ñibbi du ngeen du ngeen dem Kaolack parce que bu ngeen demee lu ngeen di wax bàyyi man ne ma léegi bàyyi ko rek moom mu dem bu demee ñun tam ñu topp ci ginnaaw Maxtaar daal di jël oto dem ñun tam mu demee rek ñun tam jël oto léegi si keroog ñu ngi agsi ay vers onze heures demi midi ñu ngi agsi Kaolack ñëwee ñu ngi fekk Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi tëdd ci lalam kaamil baa ngi ci kiyam ci kanamam waaw ñu ñu nuyu ko waxta wax ko affaire bi nu mu demee mu ne ah sulata sula ñëw say say waay waaye baax na toog leen ñetti fan teg nañ ci xëy na deux semaines ak yooyu bàyyi dagalaat nu billet dagalaat nu billet nee acca dem la delluwaat leen naan Mansour dégg nga ñu dem bi yoon nag ñu dem euh, Lagos xam nga foofu Air Afrique waa Lagos nga wàcc war a jël par exemple foofu Ethiopia Airlines pour war a dem Ghana mais bu ñu accès ci aéroport bi ñu xool suñu passeport nu ñaar ñu ne ñaar ñii ñoo nu causé loon pertement ba nga xam ne dégg nga amoon na amoon na kon ñaar ñi duñ leen jël certain Mansour ñas ak euh, Mor Niass duñ leen jël bi ñu waxee loolu. xebar bi daay daw biir Nigéria biir Lagos muqaddam yi commencé défilé di ñëw ci aéroport bi wallaahi waaw tuuti rek ngi ne léegi bon kon léegi accepté nañ leen man ngeen a jël turist mën ngeen jël avion bi donc su ma ko dee tii dafay xaw a gudd dafa gudd dañ koy tënk rek mais alhamdulilah euh, ñu ngi sant yàlla ci bi nu yàlla booleeg Mawlana Cheikh Ibrahima bi ñu dellusiwaat si ne ba jàng ba ñibbisi. Hmm. Euh, Imam Assane moo ma yeesal waaw moo ma yeesal ci sama tarixa tarixa waxoon naa ne Cheikh Namat ñaan ma joxoon mais alhamdulilah bàyyi itam daa boole woon na ma ci ñi nga xam ne ñoom lay wax ibnu ruux daana ma ko wax daal ante ibnu boobu nekk guma taalibe nekk guma taalibe moom waaw mais ci ci non c'est-à-dire que dafa amoon mission ci àdduna bi donc Baye euh, Euh, euh, raxma la woon quoi yërmande la woon ci àdduna bi fa inni rahmanatullahi liman yuhib li taridil mujadil loolu wax. ma leen laaj yow yaa a placé pour mu a dégg. Ah, parce que ah. ah, a marqué. man ne la am na lu bari loo xam ne bàyyi naa ko ci nag. parce que dama xam ne dañuy tënk rek quoi. mais Mawlana li ma ko gisee mooy ki nga xam ni moom la yàlla soxla woon ki yàlla soxla woon ci àdduna bi parce que bu yàlla lu mu wax daf ne euh, man maa bind mbindee fi waaye dama leen bind pour ñu xam ma te ci man lañ may xamee du ma mën a xamee ci kenn yàlla rek mooy xamle yàlla waaw Mawlana Cheikh Ibrahima nag moo mooy mission boobu nag moom la indi woon moom moom la yore woon ci àdduna bi moo tax amul woon frontière su ma demoon ak yow par exemple fi ne ci bàyyi ci Soudan googu ñu nekkoon su ma demoon ak yow bàyyi ci euh, Égypte ci naar yi suma demoon ak bàyyi par exemple ci tubaab yi da nga xam ne bàyyi bàyyi maanaam rahmatan lil alamina daal yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu nekkoon rahma lil alamina noonu la ko bàyyi dippee bàyyi dafa dipp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw parce que neen falaw sawaruni fi haqiqati la ma yaraw si waa sax sin mahbubun bihi na tamataw fi l xaqiqati la wax nag kon nga xam ne kon dëgg-dëgg dëgg-dëggi bàyyi mooy sallallahu alayhi wa sallam bila shakkin wala buftaanin donc kon li mu indi nii euh, amul frontière amul jinsiya maanaam nationalité amul ki déedéet c'est pour l'humanité toute l'humanité waaw te nag loolu nga xam ne Baye waxoon na ko ne sa taamul faydatu albasita danaa am incha allah ñëpp danañ dem ba nga xam ni li doon mission bàyyi dan ñëpp danañ ko nangu parce que loolu moom la yàlla moom la moom la jaam yi soxla moom la arwaax yi soxla ndax arwaax yëpp xamoon nañu yàlla waaw kon bu bàyyi ñëwee pour dekkal dekkal la dundal loolu ci xol yi dama wax ne doomu aadama tuuti na pour di ko jéem a fànq wala mu di ko jéem a mun munul nekk munul nekk mission bi fokk mu àgg incha allah dañ donc donc dañ leen ci ndokkeel rek di wax daal wax dëgg yàlla ne nun nañ sant yàlla nañ sant yàlla nañ sant yàlla ci bi nu yàlla booleeg maanaam Cheikh Ibrahim ndax moom mooy synthèse mooy nga la créature waaw sève la créature dëgg-dëgg moom maanaam Cheikh Ibrahim du keneen ku dul moom nag kon alhamdulilah bi nu yàlla booleeg moom ñu ci euh, ndokkeel yéen itam ndokkeel adduna bi yëpp parce que xam naa ni ñi ko ñi ko ñi ñëw ah, ñu ngi leen ndokkeel ñëwul tamitam dana ñëw incha allah dana ñëw kon donc dañuy ndokkeel àdduna bi yëpp daal ci ki nga xam ne mooy Malang Cheikh Ibrahim euh, kon loolu moo doon daal bi ijaaz macha allah euh, waxtaan wi ñu ngi ñaanal yàlla seen. Euh, rajo bi wala télévision bi yal na ko yàlla barkeel euh, yal na jëm kanam yal na bokk ci rajo yi nga xam ne di cité ëllëg incha allah def mu ñuy ay référence euh, ñi ngi ñaanal mboolem taalibe yi mboolem jullit ñi ñi ngi ñaanal mboolem doomu aadama yi yal yàlla bëgg ci nun yal yàlla kontaan ci nun yal na yàlla defal daal ba bu ëllëgee bu ñu taxawee ci kanam am ngërëmam yàlla mën na ko yàlla na ko defal donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin عليك صلاة الله ثم السلام فطرها